moo nekk ci machine bi mbokk ji leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaaru diggu bëccëg dañ koy door ak tiis wi dal ci kaw jullitu Sénégal yi rawatina murit yi muy nelawuk euh, xalifu Daaru Musti Sëriñ Abbas euh, Mbacke moom nag tey ji ci suba la nelaw ca Daaru Musti euh, xamaguñu nag kañ lañ koy denc moom Sëriñ Abbas nag nekkoon ci jal bi depuis ñeenti at leeral léegi Mouhamed Diop di xibaar bu tiis boo xam ne dal na ci kaw communauté mouride bi yëpp tey ci suba di làqu xalif bu Daaru Muxti di Serigne Abbas Mbacké gannaaw bi nga xamee ne yëgoon na ab wopp ci yaram bi dañ ko hospitalisé woon ci diwaan bu ndakaaru fan yi ñu weesu waaye nag yëgoon na ab tan ci yaram bi moo taxoon mu dellu si fi nga xamee ne mooy Daaru Muxti foofee la ko suñu borom moome ci alxemes bi ci suba sëriñ euh, Abbas Mbacke nekk ñeenteelu xalifa bu Daaru Muxti wuutu ki nga xamee mooy sëriñ Cheikh Khady Mbacke ci li nga xamee moom mooy liggéeyu maam Thierno Ibra Fati ca Daaru Muxti nekkoon nag liggéeykat bu am solo boo xam ne soppi na bu baax a baax li nga xamee mooy Daaru Muxti nekkoon koo xam ne murit yëpp ak taalibe yi amoon nañ ci moom yaakaar bu baax a baax mu wuyu ji suñu borom nag euh, tey ci suba gannaaw ab wopp boo xam ne tëraloon na ko lu yàggul dara lu jëm ci wàccaay yi nag ngir jébbal ko suñu borom njaboot gi communiqué guñ ci officiellement mu nekkoon Mohamed Diop fii ci Touba ngir rajo ci Media. Mohamed euh, Diop euh, Serigne Abbas Mbacké ñu koy jàll euh, askanu.